mbokki journaliste yi suñuy invité yi ak délégué personnel ñun syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal SATES ñoo leen woolu woon tey ci point de presse bi ñuy amal mu tombeek suñu première réunion conseil des délégués bureau bu pour bu syndicat bi puis ci réunion bi point de presse bi dafa direction générale du CNO, changé njiit Diany Arnal bi fi en janvier 2020 Valérie, de dafa dem direction générale bi ak Nia, Niang bi nga directeur des ressources humaines donc nous ñuy ñaanal Maguette Niang di ko félicité tey dañuy espérer bu baax ne mission yi bees yi ngi ko dénk dina ko matal ba mu mat ngir njëriñu askan bi ngir liggéey kat yi ak entreprise ginaaw ñetti at ak légui tek ci juroom ñaari wër ba sen o démarrer ak léegi point de presse bi day doon lu jaatu ngir échangeante ak yeen ci lu jëm ci mbirum kat yi ba tax na di ndëkk ci li ñu am lu ñuy

du teew ci bir direct euh, conseil d'administration lolu doon li nga xam ñun syndicat bu rafet lu wuñ ko sel rafet lu wuñ ko ba tax na bind nañ ministère suñu ministère de tutelle manam ministère de l'eau et de l'assainissement ngir wax mu atté ci loolu waaye booba légui yeyu ci wu ci defu ci benn jéego ngir lolu mëna a antu te tamit doonul lu ñuy rafetlu beneen poñ bi ñu bëggoon xibaar indi yenn xibaar dafa jëm ci terrain yi nga xamante ni askan bee ko moom ñépp a ko bokk muy li ñuy wax le patrimoine foncier bu secteur public de maanaam ay suuf la yi nga xam ne ñoo fi ne ñu war koo jëfandikoo ci lu jëm ci liggéeyum ndox mi waa SONES jël ko ak seen coopérative d'habitat di ko jaxat caxatee di ko séddoo ci seen biir loolu liggéeykat yi seen oo ñu ngi koy ñaawlu ba fu lu yem bi ci mujjee bi ñu def mooy fii ci ginnaaw aan fii ci direction général bu bu ngeen demee foofu di ngeen gis terrain bu yaatu lu ëpp benn hectare bu matul ñaari hectare sax nga gis ñu ngi koy terrasser pare pour jël ko yemuñu foofu ñu dugg ba ci biir direction général bu Sen'Eau jël seen terrain de football ak seen terrain de basket def ko mur ngir yokk ko ci terrain yooyu nga xam ne ñoom ñoo ko jël seen biir séddoo ko ci loo xam ne teguwul ci benn yoon loolu ñu ngi koy ñaawlu ba fu mu yem te di wax nguur gi mu jóg jël matukaayam balaa ñi nga xamante ne ñooy liggéey SONES di séddoo terrain yi nga xam ne askan bee ko moom ñëpp a ko bokk ci terrain yi nga xamante ne dafa war a njëriñ liggéey bi jëm ci biir ndox mi beneen point bu ñu bëggoon échanger ak yéen dafa jëm ci contrat de travail yi nga xam ne moo xew léegi bii ci Sen'Eau Sen'Eau comme ni ñu ko xamoon da doon recruter recrutement direct waaye weer bi ñu gën dafa jënd ñuy wax cabinet d'intérim dénk ko recrutement yi mu doon des recrutement par intérim maanaam contrat d'embauche yi nga xam ne dëgërul payoor yi baaxul amul couverture social bu baax liggéeykat yi teg leen ci loo xam ne liggéey bu metti ba pare duñ ci am dara loolu nag ñun liggéeykatu seen boobu rafetlu wuñ ko ñu ngi ñaan direction bi mu deltu ginnaaw ci loolu mu recruter liggéeykat yi ñu bees ñu jël leen ci anam yu gën a baax signé leen ay contrat yu dëgër maanaam CDD wala CDI embauché leen jox leen lépp lu mu warloo ak ñoom loolu la ñuy ci direction général bi si lu jëm ci politique de recrutement beneen poñ bi si lu jëm ci surcharge de travail liggéeykatu Sen'Eau dañ leen teg ay coono yu méttee métti si lu jëm ci liggéey koo si gis mu ngi gàddu liggéey yu ñaar ñett ñeent nit di daw moom liggéey ba tas ba heure yoo xam ne sax la war a wàcc du ko mën a wàcc ndax liñ ko sëf si liggéey dafa ëpp sëf biñ ko sëf si liggéey boobu nag ñaari mbir a ko waral benn bi mooy recrutement beneen bi mooy cumul de poste maanaam poste bu ñaari nit war a jël ñu jox ko benn nit wala liggéey bu ñaari nit waroon def ñu jël ko jox ko benn nit loolu daal moo tax ñi ñaa ngi daw su baax ngoon guddeeg bëccëg ba seen wér-gu-yaram sax jàppandeetul lépp rek ndax coono bi ñu leen teg loolu ñuy ñaan direction général bi mu teggi ko recruter ñi mu war a recruter dolli personnel bi bàyyi cumul de poste ngir soulager liggéeykatam yi beneen bi mooy li jëm ci élection délégué yi personnel depuis le 18 mars bii élection du délégué direction générale de Sen'Eau organiser organiser ou comme muy dóor dàqe ak liggéeykat Les dóor ak syndicat yi les ne loolu loi organiser élection Les ñetti pour organiser l'élection vote digital si vote digital direction Euh, ñooy doon arbitre bi ñooy doon joueur yi loolu ñu ne loolu duñ ko nangu vote digital boobu nañ ko teg ci suuf organiser élection yi niñ ko daan organiser ku gagné ñu xam ne yaa gagné le temps que ñu jël seen temps bu leen neexee ñu concevoir ak outil digital bu baax boo xam ne nit ñi wóolu nañ ko ba mën a dugg ci élection yi nga xam ne mooy am fii ci entreprise beneen point bi ma amoon pour wax ak yéen dafa jëm si lu ñuy wax fonds commun de placement fonds commun de placement dafa doon xaalisu liggéeykat yi nga xamante ni dañ ko waroon jël dajale ko def ko ci benn fonds muy jur xaalis jëriñ liggéeykat yi SDE loolu la fi bàyyi woon seen e ba mu ñëwee nag mu ngi continuer di dajale xaalis bi ci salaire u liggéeykat yi waaye versé wu ko ci fonds maanaam xaalis boobu jëriñul kenn ci liggéeykat yi mu ngi jëriñ seen e te loolu ñu ngi ñaan mu takk ñu ngi bëgg direction général mu arrêté fonction yooyu li nga xam ne sax jotoon na ko dajale mu remboursé ko delloo ko liggéeykatam yi ba am autorisation ngir mën a verser xaalis boobu ci fonds commun de placement point bu mujj bi nga xamante ne moom la ñu bëgg a échanger ak yéen dafa jëm ci couverture médicale bu liggéeykat yi liggéeykat yi nag seen IPM jamono ji mu ngi sooxe ndax liñ ko yenn antanu ko xaalis bi nga xamante ne direction générale moo ko waroon subventionné dollil ko ko may ko doole def ko bor yi nga xamantene amel nako yenn hôpital yi ak amel nako yit yenn pharmacie yi moo diis ci kawam ba ñenn ñi sax ñu ngi commencé bay IPM bu ho liggey kat yi day gàddu boobam dem ci yenn structure sanitaire yi ñu leen di renvoyer ñom ak seen famille te lolu jekul rafetul ñuy ñaan direction générale mu yok subvention bu muy subventionné IPM bi ngir assurer gu yaram bu jappandi liggey kat bi ak famille wu liggey kat bi lolu lañ amone di échanger ak yeen di dolli di féliciter directeur général bu bess yi magat Niang di ko ñaanal plein succès ci mission bu bess ñu ko denk té am yaakaar bu wër ni liggéey kat yi moy soxlaam té dina ci taxaw ba lepp doon ñi ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay merci Omar je crois que loolu moo doon point de presse bi comme ni ko madame Lo waxee bu fekkee da ngeen jël PC man de naa presse la Ese ácido.